lan moo ci cërub ku womal ki womal bu déggee maanaam malik dëgg-dëgg du réy réylu mukk ci kaw nit ñi ci sababu woom koom mu am ndax day jàppe boppam ku ñu dénk caabi magasin te borom caabi ji saa bu ko neexee nangu caabi borom alal bi bu muusee te dégg maanaam almalik dëgg-dëgg day rafetal lu mu nit ñi te rafetal googu it mu bañ koo ndamoo ngir jàpp ni moomu ko kon ndam la dëgg-dëgg ka moo ko moom mu yàlla naka noonu dana ci dégg dana dëgg it ni lii mu yor ginnaaw ndénkaan kepp la ndénkaan faw lu ñuy delloo la benn nga delloo ko ca sa coobare bopp mbaa boroom soxla ko nangul ko boppam waaye ndénkaan danga koy delloo kon diir bi muy nekk ci loxo rek nga jéem ci rafetal sa kem kàttan ki womal bu déggee maanaam almalik da ciy gëm ni lim yor lépp moomu ko yàllaa ko moom alal ji alal yàlla dala koo jox nag ngir test la ku ñuy test nag lay ndamam mooy mu fexe ba at mi ba réussir ci dañ ko doon testé imaam Xasaali radiallahu anhu day wax ni cër bi moom nag ci cadre tasawuf la waxe dafa wax ni cër bi jaan bi war a cëroo ci tur bii muy tur yàlla woowu muy malik mooy nga fexe ba sag moomeel nga moom ko nga yilif ko fexe ba say soldat topp la say surga yi topp la noonu la ko wax daal li ci nit di cëroo moom mi fexe ba ak moomeelam wér ba ay soldaaram topp ko ay surgaam yi tànk topp ko mun na waaye nit ki an lan mooy moomeelam lim moom dëgg dëgg nag mooy xolam ak jëmmam xol ak jëmm nag mooy sag moomeel gi tax muy wax moom lan mooy soldat yi soldat yi mooy sa bànneexu bàkkan ak sa mer nit day bëgg di bañ di bëgg ak mer waaye nga fexe ba soldat yooyu nga yilif leen soldat bi mooy sa bànneexu bakkan ak sa merum bopp nga yilif leen ñan ñooy surga yi mu ni sa surga yi bopp yi mooy yaram wi mooy làmmiñ bi ak ñaari bët yi ak ñaari loxo yi ak cër yi des yépp ay surga lañ nga fexe ba surga yooyu nga yilif leen fexe ba yilif leen ba moom leen te duñu la moom nga fexe ba ñu di la topp te yow nga bañ leen a topp mun nag loolu bu amee ku ko am rek na xam ni am na daraja doon buur ci àdduna mooy na fexe ba yilif ay soldaaram na yilif ay njabootam soldaar yi mooy lii mu waxoon njaboot gi mooy lii mooy cër yi mu ni boo ci boolee nag bañ a soxlaal nit ñi dara nag far nit ñi sax aaje woola ci seen mbiri àdduna mbaa seen mbiri àllaaxira nag yow yaay dëgg dëgg buur fii ci kaw suuf ne daal ni loolu yi mu wax nag mooy martabab yonente yi yonente yi foofu lañu nekkoon muy ko ga ñuy gindi ko ak gindee ga ñuy gindee soxlawuñ ci kenn ku dul yàlla ak wax yooyu ñuy am bu jóge ci yàlla kon soxlawuñ soxlaaluñ nit ñi dara te nit ñëpp yi danañ leen ittewoo ngir wax yéegi bi leen suñu borom tànnee ba jox leen ko keneen ku ko soxla ci ñoom ko ki mën a jël kon ñoom ñooy buur yi dëgg-dëgg ci àdduna ngir soxlaa lañu ku dul yàlla te ku ne soxlaa nga leen bu ko defee nag ginnaaw am ambiyaaw yooyu nag ña ca topp mooy awliyaaw yi nit yàlla yi xam-xam bu jëfee xam-xamam mooy nitu boroom xam bu jëfe xam nga xam ni moo wóotu yonente ci zahir ak ci baatin moom seeni bakkan not seeni bakkan moom ko ñooñu ñoo topp ci e, martaba ambiyaaw yi ci nguur gi ñu am ci àdduna ginnaaw bu yonente yi jàlle moo tax am na benn buur bu wax benn nitu yàlla ni ko loo bëgg laaj ma ko mu ne ko nan laa leen laajal li ma bëgg te yow e, am naa ñaari jaam yoo xam ne say sangale ñaari jaam yoo xam ne say sàng lañ mu ne ko ñum doon mu ne ko xër ak bànneex man maa leen not te yow ñoo la not xër ak bànneex man mi maa leen moom te yow ñoo la moom kon nan lay dikk di la laaj dara lu ma bëgg ci yow am benn sëriñ bu ñu wax it bu nit wax ni ko dénk ma mu ne ko li ma lay dénk mooy nekkal buur ci àdduna di buur ca àllaaxira mu ne ko ah loolu nu ma koy defee mu ne ko dangay fexe ba bañ a xaymeem dara ci àdduna fexe ba say bànneexi bakkan nga not ko ba du soxla dara ci àdduna boo ko defee rek da nga doon buur ci àdduna ak ci àllaaxira ndax ak nguur du dara lu weesu liibar ci sa bopp ak bañ a soxlaal kenn dara buur mooy mu liibar ci jëmmi bopp mu bañ a soxlaal kenn dara ni ko te boo notee sa bànneexu bakkan not sa uh, not uh, bañ a bëgg àdduna boobaa da nga doon buur àdduna doon ko ëllëg ndax buur dara lu weesu liberté ak ñàkkat ak ku doylu liberté ak ku doylu moo tax seydna yusuf alayhi salaam dafa wax ci ba muy wax ak boroom ni rabbi qad aataytani min almulki wa allamtani min tawil al ahadis lenn ci borom xam-xam tafsir dañuy wax ni dañuy wax ni lim ci jublu kat mooy ملكتني سيطرة على نفسي موي موم لو غاما نوت سما نوت نوت بكن نوت لو غاما سما بكن من الملك موي نوت بكن نجول كون لي غن ري سي لو جولت ام موي مو نوت بكن لي ني داني لك موي دي ستامتال غورو يالا تا موي لي غاي غيس سي سا دي ستامتال ملكوت الله تا موي دي ست سي سا may yi yi féete kaw li ngay gis li nga gisu di nga di ko xalaat ci sa xol loolu bokk na ci liy may nit kóolute ci ak ngëmam ndax suñ boroom dafa wax ci alxuraan ni wa kadalika nuri ibrahima malakuta alsamawati wal ardi waliyakuna min al muqinin kon di settantal di xool eh, ci li ngay gis di ci yéemoo ci mbirum yàlla la nga gisut nag yooyu xalaat ci sa xol loolu bokk na ci di may nit kóolute ngëm yi ñaan su borom mu defal nu ak dégg ak topp ak jariñu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh